Euh, mi ngi noonu ana sutura yi fi maam yi bàyyi woon oustaz ñu dellu siwaat nag ci li nga xam ne moom mooy plateau bi ku ci bëgg a dugg nag mën nga def 88 628 37 37 acca non xaaral ubbeegu ma la de xaaral xaaral ma xaaral ma ubbi la xaaral ma ubbi leen dama leen a tëjoon dama leen a tëjoon dama leen a fi noonu acca lifin naa leen Zik FM allo salaamaaleykum waaleykum salaam bu ñu ngi dolli siyaar bu baax sëñ bi. di déggee waat émission bi. jërëjëf jërëjëf yéen a ngi def lu am solo. jërëjëf jërëjëf mais bu baax. waaw. man de xam nga lu may xalaat. te uh-huh. eh waaye nit ñi nañu tiit. Uh-huh. nañu tiit xam nga tiit. Uh-huh. parce que Assane. képp koo xam ne yaa ngi dund te nekk ci suuf si. da bàyyi na xel dala dégg. dëgg la. te ji ñàkk Serigne Touba kenn ku ci nekk. ëllëg mm. dina la laaj. Mm-hmm. Sama FM. dina laaj waajur. Mm-hmm. dana laaj doom. Mm-hmm. kon émission bi ñaar yooyu la. waajur yi ak doom dëgg la. Assane. mbir ci biir néeg bi la njëkkee. dëgg la. génn ci ëtt bi. day génn ci mbedd mi bu génn ci mbedd mi law. Uh-huh. kon balaa muy génn ci mbedd mi. ci ëtt bi. nañ ko yar ci biir kër yi ci biir néeg bi ba pare. gis nga Assane. xale mhm. lu mu gis rek lay màggale jamono mhm. yor soxna yaay nekk si bàyyi nekk ngeen yor njaboot bu ndaw mhm. xuloo mënut a ñàkk ci ci ci couple waaye ngeen koy nëbb waaye boo meree jàpp sa doomu xale bi deful dara wallaay li ma doon wax léegi wala bàyyi mer jàpp doomu xale bi deful dara xale bi loolu lay màggee même pas deux ans ngeen divorcé xale bi dem beneen kër gis beneen beneen beneen comportement bi ci def Assane nga baal ma ci wax ji gis nga ñi ngi wax xale ji mais léegi léegi nga gis mag mu doy waar. asan gis nga li mag ñi léegi nga li ñu wax ci xale yi naan dañ leen di yar pour ñu yaru. léegi nga gis gis mag moo xam ne day def day ci dëkk bi. def lu ko neex ñëpp di gis mu taal otom dem. mag mu ñu yarul. xam nga ni loolu. mag mu mag mu du xale de mag la. gis nga. pour ma gàttal tout court. mën naa koo gis ni képp koo xam ne yàlla dénk na. na nga bàyyi xel ni dina la ko laaj. dëgg la. waajur yi nañu yar xale yi. Mm-hmm. xale yi nañu yaru. nañu yaru. gis nga ku ko ci deful. bis mm-hmm. dina mës a di nga ko sa loxo jooy te su boobaa. Mm-hmm. Ah, waajur yi mën naa am lu ko naqari wala wala xale bi mën naa am lu ko naqari. dëgg la. parce que gis nga xale yaa ngi nii ci tey ji por problème yi. Mhm. da ngay jëli ci mbedd gis benn xale dagg saaga ndey woo xam ne asan da nga naan fu mu ko gisee. Mhm. est-ce que sa kër la ko déggee. Mhm. est que yaay ja ba mu koy nàmpal lay saaga. fa mu fa mu génnee la ko di saaga ndey nu ko neexee nangam taala jaar dagg fu. ñaaw wala muy saaga jëkkër ji sax. Ah. wala muy saaga jëkkër ji di saaga wala wala soxna si di saaga. saaga yi ñaaw sax. waaye xale bi boo amee borom kër du ko saaga ndey. wallaay wallaay. fa yaay ji doon jaar wala ba fa baay bi doon jaar lay jaar. Ah. day dang fa saagu gëdiñee parce que danaan sama yaay laa ko déggee waaw li olof di wax naan naar bu ndaw selum selum dégg sama mag bu la ko dégge asan bu ma réer xoolal <laughs> gis nga waaw ah. couple nañuy xool li ñu def ci seen biir ñii ak xale yi ñuy bañ ñu ci teg seen i bët surtout loolu tamit hmm. parce que li ñuy màggee moom la ñuy gis hmm, hmm, ci biir néeg bi sa papa danaan saaga sama yaay kon bu ma amee sama jëkkër dama koy saaga waaw waaw wala sa wala sama yaay danaan saaga sama kii su ma amee kii dama koy saaga waaw saaga bi foofu la koy tàmmee xale li mu gis rek lay màggale. bi ci des yonent bi bañ ko laajee kan moo gën ci ci nit ñi. Hmm. mu ni ki gën ci njabootam. Hmm. Hmm. nit boo amul yërmande mënoo yor mënoo yar njaboot. da ngay am yërmande yaru. yaru ba pare door a gis nga bu la yàlla mayee sa soxna baax na baax. parce que li nekk ci yow rek nga yaree sa njaboot. waaye boo kenn mënu yor njaboot. da ngay am yërmande. gox moom daal tout court soo ko amul doo ko doo mën a yor sa njaboot. Mm-hmm. Mm-hmm. nit ñi ñu delloo ci seen xel yi. Mm-hmm. mbedd mi ni muy doxee lu ñaaw ak ay yëf yi yoo xam ne maara daal rek ngay gis. xuloo beeg coow histoire bi jàppal bàyyi. fi mu fi mu daanalee oustaz euh, foofu laa bëgg ñu duggaat fa muy mbedd mi li ñuy nemmeeku saasu ne ci mbedd mi te pourtant ñi ci mbedd mi ñëpp ci kër yi lañu ñu jugee waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi leen di ziar. ñu ngi leen di ziar bu baax alhamdulilah. alhamdulilah waa damaa bëggoon a participer ci émission bi. ay ayca bisimilah. di leen nuyu yéen ñëpp. ñu ngi fay bu baax a baax am lay bëgg a dugg ci deux points yi rek. Hmm. bu njëkk bi moom mooy comme yar. Hmm. damaa dégg ci commencement bi ngeen ni jigéen moom moo war a yar. Hmm. ma bëgg leen confirmer effectivement loolu la l'islam wax. al ummu madrasa ndax al ummu madrasatul ula lil banuun. maam yaay mooy yarkat bu njëkk. léegi bu fekkee ne dañoo l'islam dafa wax loolu ñun ñu indi suñuy luwaay bopp teg. léegi ni yaay bu xëyee dafa war a wuti bàyyi wuti. kon dootul am ku des ci kër gi pour yar. déedéet. te dama dégg ci biir waxi Linguère mu daan ni. bu ma amee sama doom man maa ko war a yaral sama bopp te danaa ko yar. waaw moom bu fekkoon ne amoon na soxna boroom kër tey mm-hmm. fas yéene ne liggéeyam boobu noonu mm-hmm. yàgg bi ci doomam day échappé wu mm-hmm. kon liggéeyam dootul demee na mu war a demee léegi kon dañu fa te boo fa bàyyi desee tamit kër gi man naa demee noonu tuddati boobu mooy premier point bi nga xam ne si la bëggoon a participer deuxième point moom mooy li concerne wàllum daara. Mm-hmm. comme bin naan maam xale yi génn di yàmbañ. xam nga réew mi léegi léegi dañuy gis ay problèmes yoo xamante ne jii. xam naa fa war a faja xam mm-hmm. mais dañ koy romb sëgg ko. Mm-hmm. daal di dem fa nga xamante ne jii dara xew fa ñu bëgg ko faa réglé. loolu loolu mooy suñu problème nag si wàllu daara. loolu mooy suñu problème nag. waaye nag daara yi nga xamante ji dañuy yelwaan di jàng hmm. ñun ñuy jaar si daara boo na ko laajee xàmme nañ ko ak yi nga xam xamante ji yelwaan mooy seen liggéey wallaay wallaay waaw hmm. ndax ñun daara yi daa jàngee hmm. sëriñ bi même bu naan la indil nangam day dem ba xool xam loo xamante ni ji yow dongo bi dana la wér ni lii mën nga ko ndax dadaa am dongo yi dan daa jël weccet wi bu yelwaanee di ko def seen ñor kuba yi wala ñu koy gas di suul léegi nag loolu nu ñuy def noonu dañuy am weccet sëriñ bi kon boobaa dara du ñëw ci moom léegi nag sëriñ bi xool loo xamante ne wér na ko ni lii moom ku xëy trente minutes sax boo ko defee ci mbedd mi gis am ko mhm. comme lu mel bu këram ñun suñ daara yi loolu lañ daa wax ku yalwaan ba ñëw na nga andi fukki dërëm donc da nga daa yalwaan am ay trois cent deux cent cinquante bu ñu dikkee fukki dërëm la jox sëñ bi li des di ko nafali ah. léegi Moussa Wade deux mille lay laaj moom taalibe bi léegi nag sëriñ nga xamante dafa dikk pour def ko business nag waaw mooy Moussa Wade kooku bu dikkee day dem daal di laaj dong bi mille francs wala cinq cent su ko defee kooku chaque weer day envoyé hmm. par exemple hmm. ndax lu ne dund léegi nag loolu état moo nu ko gën a xam ñun ndax ay am na ay renseignements généraux. Hmm. Ah. ñu ngi wax lu am am solo waaye nag waaye nag xam nga ñoom ci fukki dërëm lañ leen doon laaj oh, waaye ay oustaz Moussa Wade oustaz Ibrahima Mbengue ñoom ay 2000 la ñuy laaj versement ñoom journée la ñuy laaj journée moo moo tax ma ne la asan <laughs> uh-huh. mbirum daara moom uh-huh. te daara yi dafa séddale ay pàcc daara yi dina wute am na daara yalwaan jëlañu auditeur boobu mooy daara yar yar tamit Zik FM allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi dolli siyaar bu baax sëñ bi. waaye na ngi ci jàmm. Ah, kooku sama sama sama sama sama sa patron la. naka yitte. maa ngi lay siyaar bu baax sama patron s'il te plaît. nuyu nañ ñi ci palaato bi yëpp. Ah, ñu ngi lay fay bu baax di wax ne waxtaan wi am na solo. Mm-hmm. Mm-hmm. amati na solo sax laay wax. parce que ñëw da naan bi ñu passé moo dàq waaye heure bu ngeen indee tem rek wax dëgg yàlla day am solo lool lool lool da nga baax mais asan gis nga yar nag moom hmm. hmm. man du ma ne sax papa mooy yar wala yaay mooy yar hmm. waaye man gis naa ne moo war a yar boppam même bu la sa papa yarul sa yaay yar la boo demee ba màgg xàmmi xam nga li baax xam nga li bon nit nag bu demee ba xam ne li baax xam li bon xàmbe janj joor mm-hmm. war na mën a yar boppam mm-hmm. Mm-hmm. papa yi waroon def def nanu ko yaay lañu waroon def def nanu ko ñun nag ñoo judd xool la suñu papa yi def ci ñun ñu teggi ko teg fële xool li sañu yaay def ci ñun ñu teggi ko teg fële indi suñu système bopp uh-huh. Uh-huh. jamono ju néew la woon du ma ne dafa woon ni de waaye mu ngi bëgg a woon ni. woon ni na kay ba pare. xam nga bu njëkk. Mm-hmm. dugg ci kër. Mm-hmm. benn télé moo fay ne. surtout. kuy seetaan. ñépp ca saal ba ngay toog. Mm-hmm. théâtre lañ daan seetaan. léegi télé yi bari na chaîne yi bari na. novela sa ngi fi. sama FM yeneen ak yeneen. te film yooyu yëpp amul benn bu ci éduqué. wallahi yang wax lu société bi di dund nak waji kër go dugg lu leer ngay wax papa yaay doom la ni dundé mhm. nek yaangi ak sa nek télé hmm xamato la xew ci ëtt ba hmm bo sangu nga yaangi sa nek yaangi ci sa télé hmm la di def ci biti xamoko billahi kër yu bari amatul sal hmm te kër yi bu da daan am sal mhm. wala veranda ci sal ya wala ca <laughs> veranda ya waaw mais këru léegi amatu ko. déedéet bopp sa bopp la këru léegi saal sax amatu ko. néeg boo dugg am na télé. ñëpp nga toog ci télé ya. concentré wu ci. est-ce que. film yi am théâtre kat ya fi nekkoon. waa Daaree Kocceeg yu demee. wallaay ana dem yañ daan yañ daan développé. wallaay waa Daaree Kocceeg. encore une fois. parents yi la waroon def def nanu ko mhm. ñun nag nouvelle génération bii ñoo war a xolaat bu baax ni ñuy éduquer suñuy doom mhm. Mhm. parents yi bay nanu seen waar wa dem de waaye ñun ñi fi nekk léegi wuutu leen ñun ñoo war a xoolaat suñu comportement jéem a xool la papa ya daan def ak la yaay ya daan def mu ko sem bi amati na solo jërëjëf waaye vendredi bi di ñëw ah. dama leen a bëgg a jox thème Assane. ay ca ay ca. thème bi ma leen bëgg a jox. Ah. maanaam yàq der. yàq der. laa bëgg ngeen waxtaan ci. incha allahu vendredi yàq der la ñuy waxtaane mooy di tuumaal nit ki. lu mu def. naan diw dafa def. Ah. te diw deful. Mm-hmm. wala diw dafa wax. te diw waxul. Mm-hmm. wala gis ñaar ñu dem. Mm-hmm. ngay bañ ñu dem. ba tax ngay wax di ca wax. bëgg naa ngeen waxtaan. la ci non ajjuma kay oustaz a koy dégg yàq der. Mhm. waaw kay. incha allah. jërëjëf. aca mi ngi noonu waaye oustaz. Mhm. Euh, fii Ziz daanelee dafa am fu mu dugg foo xam ne daf ma daf ma ñor. Mhm. muy euh, li nga xam ne. nit yaay yar sa bop mhm. ci li tax ni nit yaay yar sa bop mhm. da ngay gis ko xam nekkut ak papaam mhm. nekkut ak yaayam waye amna yar bo xam moko def ci mom da ngay gis tay élève bi day nekk primaire génn dem lycée génn dem université te bi dem université def na université quatre ans wala trois ans te bi nekk université nekkut ak papa nekkut ak yaay nekkut ak mak nekkut ak mbokk waye yar na fa boppam te xam dafa am lu ko fa yobbu muy sakku xam-xam pour génn dem wuti leneen. Mhm. te pourtant nekkut ak papa nekkut ak yaay waaye yar na fa boppam. Mhm. waaw nit tamit yàqoo na cité de. Mhm. waaye tamit nit yaree na boppam cité. dëgg la dëgg la parce que nangu naa li nga xam nga tey boo xoolee Linguère uh-huh. tey ñaata nit ñoo jóge université uh-huh. yaru bay yaraat ay nit. tey yaru dama ko jëlaat benn ci ki nga xam ne mooy boroom kër gi. tey muy Ousin Ndour bi muy nekk université. Uh-huh. pourtant papaam nekku fa yaayam nekku fa. waaye dafa am lu ko fa yóbbuwoon mu bëgg ko pourtant bi mu génnee ba am li mu bëgg pourtant day formé waat nit cité boo fa demee bu la fa jàng taxee yóbbu da ngay jàng bu la fa fo taxee yóbbu da ngay fo ndax nekkoog papa nekkoog yaay. Malo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant alhamdulilah. mbaa ñu ngi ci jàmm. ñu ngi sant alhamdulilah. ñu ngi leen di jaar bu baax baax. ñu ngi dolli siyaar bu baax. di bi bu baax. xanaa ko. yeewoo naa kay. non voix 17 h bi dafa changé de. dix-sept heures trente xam nga ni boobu dafa gi boobu dafa ala daw ba <laughs> non ni may déggee voix bi dix-sept heures trente ak bii dafa mel ne yeewoo goo de <laughs> boobu Iran Irak la <laughs> sama waa ji koy ziar bu baax bi baax a baax a baax neex na ko ziar ñu lay ziar lu waxtaane bu baax jërëjëf jërëjëf am na solo mm-hmm. merci beaucoup a uh-huh. uh-huh. bi mu demee ba ma ba nekk ki maanaam ki yaru. waaw ki ñuy yar. ki ñuy yar. waaw fan lañ ko war a yar bi mu demee wala bu màgg. non est-ce que bi muy am li nga xam ne moom mooy sept ans six ans du maanaam pour war a mën a dugg école wala mën a dugg daara. Hmm. école bi ñu la fay dugal pour lan la pour ñu éduquer la yar la jàngal la. d'accord daara bu ñu la fay dugal pour lan la pour ñu yar la jàngal la. Hmm. bu ñu lay yóbbu pour métier métier mi sax du question que ni maanaam dañuy ñëw pour def xam-xam bi ci yow. Hmm. waaye ki lay jàngal métier war defaat yar ci yow. en tout cas mus naa fi wax Moustapha benn yoon. Mhm. ne ko nit ki maam Cheikh dañ nit ñaari yoon la lay la yar. Mhm. ñu ne ko ban la ban ñu ne ko boo doon choisir ban nga ci choisir mu ne bi mu yar boppam moo gën. waaw ginnaaw bi la sa waajur sa papa sa yaree ba pare. bi nga yar sa bopp. après yow bi nga yar sa bopp moo gën. Mhm. parce que bi nga yar sa bopp ci ngay jombe. ci mm-hmm. ngay rus a fene ci mm-hmm. ngay rus a di sàcce ci mm-hmm. ngay rus di yàq der comme li Aziz mu génn léegi ci ngay rus sax di jom mooy yàq deru Assane Gueye ndax Assane defu la waxu la mais da ngay yàq deram rek donc bi ngay demee bayat sa bopp nag ci ngay mën a jombalee sa bopp ci yooyu noonu lu bari donc bi te damaa mos a dégg sëñ Moustapha mu ne nit ñi dañuy jàngal seen doom yi fenn waaw ñu laaj ko ci nan mu ne parce que da nàmpal sa doom wala ngay nax sa doom te naan ko noppil ma may la tàngal. mooy li ma. <laughs> léegi bu <laughs> noppil ma may tàngal. waaw. waaw donc. <laughs> lu leer nga wax bii de uh-huh. mm-hmm. nag xëy na ñoom dañoo tëlee yar. Mm-hmm. tëlee nañoo trop. waaw tamit ndaw dafa war a génn. dafa war a génn nga tumuraanke de. Mm-hmm. tuuti nga gis yu bari. donc doolu tamit dina la dina la muccal ci yenn yi. am na solo. jaajëf bi jërëjëf Linguère dégg nga li mooy li ma wax sànq ci début bi ngeen di nàmpal. Mhm. baat yi ngeen di yëkkati. muy toog seen nopp doom. am na tamit leneen loo xam ne mi ngi def ci moom oustaz. Euh, waaw lu am la lu am la Assane. waxuma la nàmpal sax mais nit ki bu ëmbee. Hmm. kàddu yi muy wax yëpp doomam da koy yëg. Hmm, hmm, kàddu yi muy wax. doomam da koy yëg da koy jël. foofu nag. dina commencé jox njabootam yaat. dina mm-hmm. commencé orienté nu mu teeti njabootam. Mm-hmm. Assane ñu weesu foofu nit ba muy judd dafa set wecc mm-hmm. lu nekk ci yow ñaar ñoo la ko si def. yaay ak su ñu fàggoo ci sa yar rek nga yaru. li firnde loolu moo ni moolkat bi. saay su moolee nga ñëw machine rek sa sa sa sa eh, baaraam. Ah. moo fay des. wa lu leer nga wax de. <laughs> Zik FM allo. waaw ah man ma xàmpee mburu mi nga nga décroché. <laughs> bu wax ji leeroon rek nañ ma mer. Baye <laughs> Baye Karim Baye Karim namu mu la. wallaahi al oustaz maa la lool démb maa ngi lay déglu mais fekk ma xaw a jàmm. dëgg la dëgg la ziar naa la ci loo ñu ngi sant ba. Baye yaa ngi ci alhamdulilah am na solo. ñu ngi lay bëgg baax. laali kat ziar naa la. Baye Karim ziar naa la. sëñ Mass Kokki. waaw ah, Baye Karim maa lay ziar. moom alxasan nañ <laughs> mais yéen a ngi si jàmm. waaw ñu ngi sant alhamdulilah thème bi am na solo trop trop. jërëjëf waaye comme temps bi dafay xaw loolu ñu xaw a ñu profité rek. Ah, ah, ah. li ak li mu daa tënk rek. parce que oustaz. bu ñu xoolee. buñ nee yar dëgg dëgg dëgg. Mhm. ñu nangu ko ak ñu bañ koo nangu suñu yaay yi ñooy yar. Mhm. xam nga lu tax yaay yi ñooy yar. Mhm. yaay newuñu ko xëyal dem wuti alal xëyal dem màtt xëyal dem nangam nangam mm-hmm. dañ ne la toogal ci kër gi mm-hmm. boroom kër gi mu ngi indi lim la jox nga doyloo ko dem ci marché togg ñëw jox ko mu lekk mm-hmm. Karim jox waaw est-ce que xam nga ni toogal ci kër googu dama koy bañ xam lu tax ma koy bañ aha Karim lan moo tax boo amee sa doom bu jigéen waaw bu amee six ans sept nga yóbbu ko école mu dem jàngi léegi lan lay jàngi ci ci école ba li muy jàngi ci école bi waaw ban ban école école daara wala école France. non école France ñaari euh, Karim. waaw xam nga Sénégal dafa am loo xam ne maanaam faw ñu dépassé di ko wax naan jigéen war liggéey. ndax da nga am sa doom Karim. waaw léegi li may wax dama leen. dama leen yow boo amee sa doom bu jigéen. waaw pourtant sa doom bu jigéen bu amee 6 ans 7 ans. waaw koy yóbbu école. pour mu jàngi léegi li muy jàngi école pour bu génnee lan moo tax pour mu am liggéey. Ah, waaw mais xam nga man foofu laa jëm xam nga kooku école tubaab bi la. mais mais mais mais man dama d'accord ak foofu. fa laa jëm sax xam nga parce que première chose du du du liggéey mais nit ki dafa war a jàng pour ubbeeku ba pare. xel dafay màgg te koy màggal mooy jàng. léegi kon jàng mi léegi lan ngeen ko fa tegee pour xel mu ubbeeku rek. déedéet diplôme muy am ci école bi lu mu koy jariñ. Assane waaw danoo nekk si monde euh, bu ñu waxantee dëgg. Uh-huh. yàlla waxul ci tubaab bi dara. Uh-huh. neewul dem leen jàngi tubaab. Uh-huh. alxuraan la wax. te même bu demee jàngi tubaab bu 13h jotee bu wàccee bu ñëwee dina fekk yaayam du yàqagu añ lam ca am as ñëw mu toog ci woto yaayam mu koy cotiser. waaw pourtant ñaata yaa sayda ñoo nekk. ñaata ñaata yaa sayda ñoo nekk Sénégal. ak may ma tuuti ma daaneel. beneen beneen bi ci tegu. mooy euh, xale bi. bu fe bu fekkente ne mi ngi ci biir kër gi ak doomam. yaayam moo koy surveiller. lu mu def naka su dul noonu. su bàyyi ji bu bàyyi ji liggéeyi jiyee ba wàcc dina ko wax lu doom ji doon def ci kër gi bu jaree dóor bàyyi dóor ko. parce que yaay ji moom mooy surveiller njaboot gi di xool naka sudul noonu yi muy def bu baay ji dikkee mu wax ko ne ko def na nangam ak nangam ak nangam ngir mu mën koo corriger mhm. waaye bu baay ji xëyee dem wuti yaay ji xëyi dem wuti doom bi rek kese kese nekk ci biir kër gi mhm. xanaa xamoo Assane da ngay yar sa doom ci biir kër gi mu yàqoo ci biir néeg bi mhm. baa ci saal bi mooy li juste di wax léegi tele yi Hmm? da ngay yar sa doom ci digg ëtt bi ngeen toog di ak di ko surveiller di ko yar ni nga koy yaree génn bàyyi ko ci biir salle bi muy seetaan film yoo xamante ni day jéem a génn ci biti di jéem a xool li ñu doon wax dëgg la wala du dëgg hmm. bu ñu jógee foofu laa li ngeer di mu wax sànq ci waxu daara hmm. gis nga dama mos a déggu Oustaz Iran Ndaw mu ne képp ku jël sa doom yóbbu ko ci école français wala école bu mu mën a doon ba doom ji tëll nga indil ma ko ci daara ji boo ma ko indee dama lay wax jëlal sa doom yóbbu mhm. ndax man damaa yor ay doomu jàmbur fii ci biir kër gi te dama leen yar ba ñu baax bëgguma koo xamante ne sa jikko baaxul nga ñëw indi ko ci samay taalibe jikkoom jooju mu def ko ci samay jikkoy taalibe yi te fekk yar naa leen ba pare mhm. xam nga dèjà kon ki nga xamante dafa bonee ci àll bu ñëwee fekk ñu baax benn pompiteer bu bon day yàq saako pompiteer yu baax mhm. non kooku kon fan la bonee boneewul ci mbedd mi de waaw non ak ah, non waxeewu ma ni ci mbedd mi la bonee voilà ci kër la bonee même bu fekkante ne ci kër la bonee. même bu doonee ci kër la bone mën naa bonee ci mbedd mi. parce que xamul tax mën naa bone ci mbedd mi. nu muy bonee ci mbedd mi. mën na nekk ci biir kër mhm. wan leen loo xamante ni bokkul ak li muy wane ci mbedd mi. Mhm. da ngay gis jigéen ci biir kër gi muy julli di def nag di def lu ne mel lu ne. Mhm. muuru ibaadu génn ci biti simmi ko sol tubayam. waa kon kooku kon kooku ak mbonam fan la koy wane. li ci mbedd mi. pourtant ñi mu ko won ci mbedd bi ñooñu ci biir kër yi lañ jóge waaw ñooñu leneen la asan loolu leneen la <laughs> parce que ñooñu ci biir kër gi lañ jóge bopp la moom mi nga xamante ne li mu wane ci biir kër gi moom la wane mhm. ci biir kër gi wane ko ci mbedd mi kuy wane ci biir kër mbedd mi nag kooku la wax ni moom ci biir kër gi la yàqoo am na solo waaye ku yaroo ci biir kër gi te te la ngay wane ci biir kër gi bokk la li nekk ci mbedd mi kon kooku ca mbedd ma nga <laughs> noonu di ko jaajëfal yar yar yar gi moo am solo mm-hmm. yar yar ah. ak yaru comme les justice man loolu laay gën a d'accord nit yow yaa war a mën a yar sa bopp am na loo xam ne tey ginnaaw bu ko sa papa defee ci yow sa yaay def ko ci yow yow yaa war a mën a yar sa bopp mhm. tey di ngay gis góor ñoo xam ne nit ñoo xam ne ñi ngi ci kaw suuf nekkuñoo papa nekkuñoo ki yaay te pourtant ñoo gën a yaru ñi nekk ak seen papa ak seen yaay asan asan yar sa bopp mooy ni majeur naa jomm naa jomm naa nanga fekk yar na la ba pare mhm. bismillah mhm. comme Mm. ay cër. dafa am 88 628 37 37. comme lu ñu ci rek ci yaay yi. Uh-huh. ndax comme li nga ko waxee léegi am na madrasa. Mm-hmm. yaa école la. Euh, assan sa doom saa yu wane lor diggante bi nga xam ne yàlla def na nga nga wane ci lor. Mm-hmm. foofu nga tàmmee di yar li xam ne moom mooy sa doom Assane. tey sa sa sa sunu sunu femme bi tey yaram bi tàngul de lan moo ko dal. Zik FM. asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw kooku la sama góor. ah kooku soxna Maguette lay doon sama jigéen. maa ngi lay ziar. maa ngi dolli bu baax maa gën Serigne Babacar. naka journée bi. waaw sant alhamdulilah. Ah, dafa mel ne tey flex na journée bi ala daaw mel na. waaw waaw tey moom flex na moom. ndax ngeen dugg ñun ñoo ko moom. <laughs> waaw waaw maa ngi ziar li ngeen. maa ngi lay fay maa ngi ñu xol lool toog mi maa. ah maa ngi lay a uh-huh. ndax bu mm-hmm. ne al umu madrasat. dañ yaay mooy école bi war a njëkk ci doomam. Mm-hmm, mm-hmm. gis nga wax ji wax ji lan la. Mhm. ñun la. Mhm. ñun ñoo jur agresseurs yi. Uh-huh. ñun ñoo jur sàcc yi. Sama fen ñun ñoo jur imaam yi. Sama FM. ñun ñoo jur nitu yàlla yi. billaahi dëgg neexul de. kon lépp ñun la. Mhm. jigéen dafa war a nangu. li ñuy wax yépp ay falaa falaa la mais jigéen dafa war a nangul boroom këram. te nangu gi mooy na commencé ca ba. ndax jigéen boo bañalee sa jëkkër mhm. wala di ko defee maa tey mhm. wala kon ni mu koy defee ñun naan bu ñu meree suñu jëkkër yi nan leen di koñe mhm. doom yi fa lañu bonee billaahi ndax maa ngi doon déglu ci benn mag mu ni jabaram aawoom de macha waaye ñaareelam aka tàng waaye doomu ñaareel ba ba tàng moo baax ba ñu laajee kilifa gi dafa ne daf maa nangu ci diggu lal ba Sama FM Mhm. kon nag ñun lu defaru ñoo ko defar. Mhm. lu yàq surtout jigéen. ñun jigéen. lépp mhm. ñun la. gis nga dañ naan liggéeyu ndey añub doom. pourtant da ngay gis nag jigéen ñu liggéey ba dee doom ji bon. waaw ñëw këpp añ bi. ñëw këpp añ bi def ci suuf mu xajam. waaw waaw. kon nag kooku dañ naan xale yi ñoom ñoo def noonu seen bopp mais ndeyam liggéey na. bu ñu xoolee ni soxna jaara

foofu la affaire bi nekk. ñun nañu seetaat suñu toogaay seetaat suñu bopp. waaye bu ñuy naan ku baax gis maa ngi dégg léegi ngay kaañoo papa Ousseyn gàcce ngaalaama. ndax nag képp ku bonoon tey jeune ñëw ci association bii. defaru nga. man de moo ma defar. bala ngay xam ne defaru nga lu ñu liggéey liggéey bu waxtu bi jotee dañuy. Oh. màgget màgget màgget màgget daan na fam sol Assane kii mm-hmm. kii kii tey Assane kii tey lu ko dal Assane xanaa di ziare gars yi ñuy bàyyi xel rek mooy <laughs> uh, Seydou Diop ak ki nga xam ne mooy Medoune Dia ak uh, Moustapha ñu ngi koy nuyu di ko ziare ñu ngi bàyyi xel sax ci thème bi xam nga yéen yéen a war a yar mm-hmm. tey thème bi seen thème la yow yow mm-hmm. ndax yéen yéen a war a yar lépp tey yéen la Assane dama sànq dama doon ñëw waaye ah, nag Assane <laughs> uh-huh. est-ce xam nga ni nit dina yaradikoo seen kër yaroo ci biti Mm-hmm. waaw mën na nekk de d'accord naa wax jooju de. yaradi ko ci kër gi. yaru yaroo ci biti. mais est-ce que mais est jaawale wu ñu ku ñu yàq ku ñu yàq si biir kër ak ku yaru. ndax yaru hmm. nag dañ koy jaawale. gis nga oustaz yaag Linguère seen wax ji faw ma ñëw tëj. waaw ligne bi 5 minutes ñu développé. dafay jaawale foofu. foofu <laughs> am na solo Zik FM allo. dañuy wax naa di jabar léegi baal ma tëj ko 5 minutes Linguère dafa ni. waaw mën nga yaroo mën nga yàqoo ci biir kër gi. defaroo ci biti defaroo ci biti. oustaz ne. dafa jaawale. Mhm. ki ku nu yàq ci biir kër gi maanaam ku nu gate. Mhm. ku ba pare te fekk moom dafa yar. Mhm. yaru ndax boo déggee li ñuy faral di wax genre ñoom li lingeer gi. waaw da ngay dégg à chaque fois ñu ne kii de benn doom bu góor la. waaw kii de benn doom bu jigéen la. waaw comme li ngay wax oustaz. Uh-huh. ñoom ñoo ko yàq. ndax dañ ne benn doom bu góor la. Uh-huh. Uh-huh. kon waxu Linguère ga ak waxu oustaz bi dellu si a xanaa xamoo ni ah. dëgg la nag doom dafa sax ci xol mm-hmm. la mm-hmm. mais doom boo ko wonee ni dama laa bëgg rek yaa ngi koy sànq yow yaa ngi sànq xale bi de doom danga koy teg nattu ndax bés dina ñëw yàlla na yéex mm-hmm. du gisati ndey du gisati baay léegi nag boobu fekk yow yàq nga sa doom ba mu yàqu yaxeet nga dee dem ba ko fi kooku nag moo war a nekk nit mhm. yaraat boppam mhm. chaque jour damay wax ci émission yi ma ne nit mooy yar boppam mhm. nit am na fooy toll ndey du la yar baay du la yar yaay yaay yar sa bopp ndax ku sañoon sa doom a gën nag asan dañu xante dëgg rek ku sañoon bu sa doom génnee ñu ne kii de doomu diw la allah kenn bëggul sa doom nga yar ko ba mu màgg mu yor melokaan boo xamante ne neexu la mm-hmm. te benn yar boo xam ne dafa ma gën a neex oustaz Linguère mm-hmm. dama koy faral di seetlu Sénégal dangay gis koo xam ne papaam yaru ko yaayam yaru ko tey mu dellu si waat maanaam jébbalu ci ginnaaw magam mm-hmm. diggante mag ak rakk da ngay gis rakk joo xam ne day jox cër mag joo xam ne tey du jël benn dogal te waxtaanu ceeg magam tey mag jooju mooy papaam mooy yaayam loolu ci lan la yar tey papa ji moom moo doon dajale ay doomam daal di ne kii moo jiitu kii moo ciy topp tey bu ñu demee ba gisatuñu papa ji tey yar googu mu leen bàyyi loon tey maanaam xale yi dootuñu jëlati benn dogalte te waxtaanuñu ak seen mag loolu manqué na léegi Assane Gueye sa doom sax mën na la yar mhm. sa doom bi nga jur mhm. sax mën na laa yar mhm. ndax am na ku dugg sànq wax lu am solo manam mak bu yara diku yaradiku nga am sa dom mu gis ni yaayam wala papam ñu bal ma ci kàddu bi yaruwul meun mm-hmm. nga yar yow sa waaj parce ko comportement bi ngay ci kër gi mm-hmm. ak ni ngay doxale ak yar bi nga andal rek meun na ko wacce ba mu soppeeku yar gi Zik FM allo allo mm-hmm. allo acca defal 88 parce que xale tamit dafay jël si ñaari waajuram mm-hmm. maîtresse bi dafa nekk si classe bi ne xale yi dessin leen mm-hmm. xale bi dessin pistolet mm-hmm. beneen yoon saa bi xëy dessin xale bi dessin mu ne ko waaye du yow rek ngay dessin loo koy loo koy dee mu ne xanaa damay rey sama papa mu ne ko li tax nga koy rey mu ne day dóor sama yaay rek ah, <laughs> baax na xam nga loolu la gis waa yoon day dóor sama yaay rek lu garaaw am na ku ko wax te réalité bu am la allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay jaar bu baax waa rajo bi. ñu ngi dolli siyaar bu baax. dëgg di rafetlu waxtaan bi. jërëjëf jërëjëf. am na solo trop. jërëjëf. li nga wax moom li tax mu am solo mooy li li àdduna bi laaj ak ah. jamono ji. Mm-hmm. Mm-hmm. ndeysaan. yar te yar moom mooy diine rek. Mm-hmm. moom bu nit ku ba amee diine du sonal ba mu sonal kenn. te man sama gis. may yar. li wax léegi ñu commencé ci ci say waajur. te boo juddoo gis say waajur nekk ci lu baax nekk ci lu nekk ci nekk ci yow da nga jomale sama bopp lu bari. Mm-hmm. dëgg la loo ko doon xayma waaye jamono ji da gis sax jigéen. ab de ak yor ak doom yi mag naa leen ba may nekk ah, xale de lu ne am naa ko ci góor. Mm-hmm. comme mi ngi encouragé doom bu jigéen pour mu ma ah. solo nag. dafa yéeme dafa yéeme ba may nekk am naa ko ci góor. mi ngi koy nga mm-hmm. ko amee ak yow day encouragé sa sa pour mu am ko. Mm-hmm. billaahi. bi tamit mooy fekk tamit yar suñu doom yi ci diine parce que jàng baax na jàng alxuraan baax na alxuraan nag mooy mm-hmm. nga woo jàng waaye terewul ñi ñi ñi kër daal lay yar ci diine. ñun dama doon waxtaan sama benn mbokk mu ñu wax mu ñuy waxtaan ci ci jikko yi yàqu yi daal. Mhm. léegi dëkk dëkk bi xaw amuñu diina nag man ñun dañuy am ay tur yu baax. Mhm. waaye yar duñ daanaka duñu yar ci diina parce que dañu màgg am quatre ans cinq ans ñu daan rek nga am sept ans ñu dugal la école. Mhm. dangay gis magum jëm duñ ko yar daral ci diina duñ ko yar ci lislaam. dañ koy jàngal bindu français jàng làkk français dem ba complexe sax. naan sax. diw jàngu bu ñu waxee diw jàngu nag mooy diw demul école diw demul école waaw te alxuraan nga xamante ne moom moo jóge ci yàlla tan sil rabbil alamin bi xamante ne moo jóge ci yàlla mm-hmm. muy gën gi xam-xam ko jàngee sax mm-hmm. ñu jàng leen ñu ñu am xam-xam te dem teg demu noonu mm-hmm. waxuma jàng kon waaye nag ab ab jiit moom li njëkk ci moom ñoo ñu la yar la ci diine mooy waral nga jom lu bari xamal allo dëgg dafa baax sax même jàng tubaab baax na oh, defaatal 88 628 jàng baax na oustaz euh, euh, waa ji dafa am benn baat bu ma wax bu ma bu ma marqué benn jour mhm. benn paa bu ma ci doon waxtaanal mhm. mu ne pa moom ilimaan la ci koñ bi ñu jox ko cër ci quartier bi mhm. xale yi dañuy crise koros di wàcce seen tubay nee na paa bi imaam bi metti ko ci quartier bi mu dajale doom yëpp ne leen xanaa doo leen xool ni man ni ma mel ci quartier bi ngeen yaru di aj seen tubay yi nee na mu wax munta deñ nee na mu bàyyi benn benn ngoon mu woo doomam yëpp ñu dajoo toog ci ëtt bi hmm. paa bi jóge ci néegam hmm. sol silet maawam hmm. wàcce caaya ji kiris koros ko bi génn mais bi muy génn xale yi daw jàpp ko ne ko papa papa papa papa fu mu toll nii boo génnee ñu naan doomu diw bi fu mu toll papay diw moo doon génn wala ñu ne aha léegi nag doo leen sédd tamit ñu naan doomu diw dëgg la <laughs> dëgg la parce que parce que euh, yar chaque jours dafay répété wu ni muy teel ci ay waajur waaye tamit ne am na foo xamante ne buñ fa tollee Mhm. Assane lii ñu gis sax da ngay gis ni suñ population bi lu ñu yoru yoru des na des na balaa ngaa xam loolu mooy ni ngay dem di fay ndox fay courant mhm. lan moo ci nekk njëkkante njëkkante waaw yaru ñàkk yar Zik FM allo allo maaleykum salaam Assane maa ngi leen di ziare ñu ngi dolli ziar bu baax di dégg Oustaz Ndingué allah am na solo waxtaan bi mhm. sëñ Njóoba Njóoba si Mhm. ñu ngi lay siyaar bu baax. ñu ngi lay jaajëfal bu baax jox waxtaanee macha allah am na. mais li ma naan rek. Mhm. yedd moom fi mu toll nii yërëm moo ko gën. Mhm. askan wi instant yi moo gën a yomb yedd leen. ndax amuñu fu ñuy teg suñ tànk barke Sëñ Tuuba. yàlla xam na ko de. damay arrière ci waxu saa neex ji rek. ñu naan bu ma xëyee xumba ni mes. ni melef. mooy li ma wax léegi. waaw bu doom nee mayu moom. <laughs> amul kenn fii Sama FM <laughs> lu leer leer laa la wax nag yàlla xam lu leer ngay wax moom li ngeer nag joxaa ko cër trop ndax jigéen na te macha allah li def am na solo uh-huh. mais nañu xam ne jigéen mooy yar uh-huh. ñun lu ñu doon doon xale xale uh-huh. xam ni yaay fa am solo si doom nag ak jigéen liggéeykat duñ benn parce que da ngay opté liggéey rek baa nga opté jigéen boo nee damay dugg ci sëy rek xam la mm-hmm. ñaan yàlla am fa ay doom mais a yar mm-hmm. su la waajur manal ku mm-hmm. ah, sa doom moo lay gën ku sañoon sa doom Njóoba moo lay mujj jamono Njóoba Junior aha li nga wax tegoo ko fenn nag ah comme ci ban côté danga ne jigéen buy liggéey jigéen buy sëy di liggéey ak jigéen buy sëy di toog ci kër mënuñoo yem am na ma foofu waa jigéen ñaa ngi liggéey di xëy di gontu seeni doom yaru rool réussir ci seen vie jigéen na ngi ca kër ga di sëy doomam tekkiwul dara dem ba tey déggoo ma wax waa d'accord moom nanguwuma parce que dem di liggéeyi kii dem di liggéeyi dama ni ah, ah. kii dem di liggéeyi Sama FM dafa bëgg a jàppale jëkkëram ci kër gi parce que jamono neexatul. jàppale seen bopp. yaa ngi dégg benn liggéey benn jigéen liggéeyul jàppale jëkkëram seen ah, jàppale. man de sa bopp laa xam. waaw seen bopp ngeen di jàppale de. man de wax dëgg yàlla. waaw. su may liggéey ba am sama borom kër. Ah. yaa ma gën a xam. ba mooy loolu de ku ci ku ci nekk ci benn liggéey bi rek. waaw. di nga changer comportement. waaw jigéen mhm. la xelam gàtt. jigéen ni wenam sëggee ni la xelam sëggee. jigéen ñi nga xam dañuy wut àll yi yàlla xam na ni am na ñoo xam ni buñ xasee am yenn yi rek seen comportement dafay changé trop. tey gis nga njóoba. gis nga jigéen gu la mottalil sa dépense. yab la loolu. yoral la sa kàddu. barke Serigne Touba Mbaye. ku la mottalil sa dépense mottali la sa kàddu. waaw gis nga daal xam naa ne daal li naan ci armement yu bari day sànq sa doom. doo ko yar doo yar de non non jigéen bu taamu alal ji bari mm-hmm. de ñaanal am góor gu la mën a yor mm-hmm. man laa satisfaire yaa sa njaboot nga toog sa moom yi indil leen mm-hmm. mais bu jëkkër xëy ni dem yoonam nga xëy ba nga jot sa jëkkër moo lay gi xëy moo lay jëkk a waat kër gi orienté wu orienté wu de am doom yu baax doom alal yoon baax alal fi nañu sàmm suñu njaboot ji mu ëpp la. jërëjëf mais léegi boo góor muy jigéen. ñu uh-huh. boo xam ne doo comprendre. Uh-huh. àdduna dana jënd ko ko wàll. Uh-huh. li nga bëgg lépp doo ko mën ndax bariwul. dëgg la daal na jigéen a baax a wax ji wax ji am na solo. Mm-hmm. wax na lépp li ngeer dégg nga ko de oustaz ay mais mais mais nag euh, Assane. oustaz est-ce que du ñu jël sunu dernier auditeur. non kii moom nañu euh, jël sunu auditeur jigéen dafa léegi nañ jël sunu auditeur bu mujj. ndax ñu sunu auditeur bu mujj 15 minutes yi des ñu ñun ñëw ci plateau bi nañ jël euh, auditeur bu mujj bi. Zik FM allo. Assane. waaw. Assane ah. jigéen moom mooy yar. am na solo. acca moo nekkoon sunu dernier auditeur. Sama FM. Euh, vie nee ban jigen moy yar. jigen bi yar manam manam jigen bu mel nan. dafa su ma mom lay laaj. ban jigen mo wara yar lay laaj. jigen bi yar moy jigen bi nga xamantene dafa am jikko bu baax. Mhm. wax na ni yar suñ ko waxe rek moy ki nga xamantene dafa am jikko. Mhm. ndax diko ngay jël di transmettre nu mu teeti keneen. Mhm. waye nag li gën ci yar ñëpp yam mooy nga yar nit ki ci jukko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam hmm. nit ki day da koy leer ni moom perdre na nàngam hmm. ñàkk wax dëgg day fen hmm. mais bëggul doomam di fen nit ki si boppam day xam ni moom fenkat la te loolu li tax ma wax ko moo ne ñoo saasam nee ne doomu aadama du deñ di fen di fen xataa yuktaba indalahi kazaab bu nu bindee bindal ko nit daal fenkat la du ko mën sa sax bàyyi mais moom xam na conséquence yi mu ciy daj mais ñàkk ñu yar ko ci loolu nekk na feebar ci moom feebar boobu du bëgg doomam nekk ci kooku di maanaam di wax lu dul dëgg di fen est-ce que yareewuñ ko ko waaw moom laa la wax mën nañ koo nu mu teeti yare loolu mhm. waaye tamit moom mën na ko incarner ba mu nekk jikko boo xamante ni mhm. mënatul dañ ci moom mhm. bu ko defee jikkoom la noonu ngay gisee société bi comme ki nga xamante ne doon wax naan nit ku yàq der boo jógee si fen rek yàq der ngay ngay eh, defal nit ñi mhm. te dafa nekk lu rëy te ñaare nekk yaa ngi gis eh, eh, soxna sa nga xamante ni daa yar doom bi mais moom ba mu yemee doom ji soxna si boppam moom moo am tey benn problème problème bu mu am mooy ni la mu nar a jaay soow mii mu nar a jaay ngir am si bénéfice dafa tuuti mu ni doom ji jëlal sa ndox mi nga yokk ci soow mi mhm. doom ji bañ mu wax wax doom ñu ne ko mukk ndax am na ku ñuy gis munu ko koy kenn gisuñu yow Omar ngay ragal te Omar nekk ko fi munu ko yàlla moo ngi ñuy gis. acca président Saye Sidaat. li tax mu bañ li tax mu bañ loolu. Uh-huh. yaay ji moo ko yar si loolu ba pare. incarné ko mu bëggoon noonu mu daal di bañ. président Zik social moo bëggoon a dugg ci émission bi Zik FM allo. waaw président Sidaat ñu lay waaw waaw nga tëj ko. waaw waaw loolu dëgg la Seydina Assane maa lay siyaar. ñu ngi dolli siyaar bu baax. naka tey mbaa ngi am jàmm. waaye sant alhamdulilah. maa ngi nuyu Oustaz Mbengue bu baax. jërëjëf si daal maa kooku di ko siyaar. ñu lay fay bu baax si daal di siyaar sa taal Linguère. waaw bu baax baax mais lépp jàmm. waaw mais waaw mais si daal. waaw waaw mais euh, Linguère ni mu leen ni mu leen fayee bakkan ni la moom loolu. ah mais amul problème ñoo faat <laughs> amul problème xamante nañu. Ah. wallaahi wallaahi xamante ah, nañu incha allah mais nuyu naa leen baax a baax. baax a baax wax dëgg yàlla di rafetlu wax dëgg yàlla waxtaan bu baax a baax. parce que dafa nekk loo xamante ni sànq boo xoolee Assane. Hmm. bi nga tegee sa son. li nga wax dafa leer nee nga nit ñi bu ñu topp musique bi nañ déglu paroles yi ci nekk. mais léegi loolu moo ci am solo xam nga la moo ci ne mais léegi guddi ñu toll dëgg de jigéen ñi ñoo daan yar. Hmm. waaw mais léegi ban jigéen mooy yar. waaw ban jigéen. te yaratuñu sax jigéen boo xam ne jigéen boo xam ne daanaka taloo sa borom kër. mais hmm. dafa jël boppam eh, eh, ndey la ko mbedd mi. waaw waaw waaw ba pare ndey la ko mbedd. waaw du tardé benn xew nag. Hmm. Hmm. benn xew du ko tardé. surtout loolu wax dëgg de. même bu dee ab xew xarit. sama FM ñëgal ko ko foo dem. li eh, may bi dem rek. waaw waaw. waaw <laughs> Sidaat fu mu toll nii nag yow lu la Linguère tontu yaa ko tooñ. Ah, non <laughs> Zik FM. ndax lu tax nga ni jigéen ñi dañuy xew rek. xalaatam lay waxee. <laughs> waaye man tamit sama xalaat lay waxe mais lu leer la. Assane. waaw démb. Ah. sa émission démb. Ah, dafa am ñu dugg daan ne la. Uh-huh. même le monsieur le bi mu fi jëlee ay jigéen yóbbu leen grand théâtre bi mu ñëwee ñu ci bari am dañoo am problème dugg seen biir kër. waaw waaw ñu seen jëkkër bu fekkonte ni seen jëkkër ñoo leen bàyyi woon bu ñu ñëwee danañ problème dugg seen kër. surtout loolu surtout surtout loolu tamit. yaa ngi dégg ah. kon nga wax ko dem nañ ci la coobare peut-être la ñu yaakaar moom lañ leen di dompal. Mm-hmm. waaye kenn xamul. Mm-hmm. du ma ne nag benn jigéen respecté borom këram. mais nag bari yaa ngi dégg ñu ba dégg benn affaire tey jii natt di ko génne naan nañ dajale commission ñu joxe naan ci bari buñ ciy dem duñ duñu tàggu seen borom kër yi dañuy dem ñu jël jox leen fa benn xaaj ñu dem ba am problème waaye Sidaat mais Sidaat est-ce que xam nga ni jigéen bu génnee te tàggawul te amul ndigal borom këram. yàlla mi ngi koy rëbb ba keroog muy wàññeeku. ba keroog muy ci biir kër gi. Sidaat yaa ngi wàcce émission bi. Sama FM. <laughs> koo ci wax koo koo ci andi tey ji mu war a tukki mu am benn frère am boo xam ne na koo jàppale. <laughs> yow sa jëm bopp nga gis ni mënoo koo xaar yow mi borom jëkkëram mu bàyyoo ko mu dem. <laughs> Ah. lu mu la ci teg mooy danga maa soxore danga maa iñaane. waaw da koy jaral mu tas seeyam wala mu yàq seeyam. Ah, Sidaat li may wax nag moom man la concerné. Sidaat ku mu mën a appelé nga waaw Sidaat yow boo teeloo doon dugg yàq émission bi si Sidaat wàcce nga fi. <laughs> waaw mais day nekk loo xamante ne lu ñuy teg loxo la. wax ni lu ñuy teg loxo la du ñuy jeex de. kenn du ko lu ñuy teg la. du leer nga wax moo fi nekk tey jii naa la xamal leen ñu ngi toog di business kan na jigéen joo xamante ne tey da nga yem ci moom mu doon sa sa alaw nga yem ci moom tax mhm. mën na lay dimbali benn affaire di la jëndal xorom ak yi ngeen xam. mais ah, boo dem ah, ah. ba ñaar boo tax kaneen téye loxoom lay def. ndoom te yoram ne ci bu xëyee même bu dee départ day ñëw taxawu la tëg-tëg boo xamul la yaa ko war a joxe la mu doon def mooy wan ni lu ñuy def ñu ci bari ngistal la mm-hmm. di wax nag comme émission bi jeex na te dag maa xajal amul benn problème yàlla baax la après la garaaw lu ñu wax baax la aco mi ngi noonu di ko nuyu moom euh, président Zik social di nuyu Iba Sey sëfëru euh, Jakarta mi ngi teewlu émission bi moom sax ñu koy ziar bu baax moom tamit ñu bàyyi xel <laughs> non uh-huh. non sa xala Sama FM. Seetaan wàcce na émission bi. li mu wax te pourtant li mu wax moo am nag ci yéen. dama ne li mu wax am na solo trop. waaw mais daa am côté bu ma d'accordul. Hmm. jigéen moom boo demee bay génn sa kër. Hmm. tàgguwoo sa borom kër. nañ xoolaat borom kër ga kon. soo matee li nga doon. non est-ce que boo leen nangoo baat ba nag. ay yow doo ma bàyyi. mais est-ce que dañ ko yëg. kon ci ku góor gi la Assane dañ ko yëg sax bu ñuy dem. kon ci ku góor gi dem di ngeen leen waaw ma xam nu ma jaaxal Linguère man benn benn question moo ma jaaxal ci yéen. Ah. pourtant maanaam seen avec yi ngeen di def. seen natt yi. waaw gisagu lan moo non damay laajte xam naa du ñëpp. pour nga gis ñi maanaam ku teggi natt bi avec bi bàyyi ba guddi mu ñëw ci boroom kër gi jëkkër ji jébbal ko xaalis bi kat ne ko li ma doon avec ngi nii. am na. bariwul. waaw na waaw. am xam nga damay dégg nga naan oustaz sànq dama dégg Linguère mhm. daal ne dañuy liggéey pour jàppale suñu borom kër dañuy liggéey nii mhm. tey laa Linguère mi ngi liggéey pour jàppale borom këram mhm. tey laa Linguère dem na ba xam ne kat maanaam moom liggéeyam ah? am na moo gën a xat est-ce que laa Linguère dina làmb ci poosam dem xooli benn xale bu jigéen takkal ko borom këram ne ko dema jàppale ci kër gi di ma soble du sama FM. ma jàll foofu ko mais mais mais xalaatuma ko. mais daal Linguère liggéey sax. ma ko def kat liggéey jigéen sax islam. man moom damay wax li nga xamante ni. Mm. loolu laay def kon jàppale woo sa jëkkër boobu moom non <laughs> non. triche pas du ko def pour lan takkal sama jëkkër keneen. aja mi ngi noonu xam nga 9 minutes nag moo ñu dese pour ñu dem ndakaar euh, jële ji xibaar yi. Euh, dañuy bàyyi maas. ac kàddu gu mujj gi lan la ak bon looy tàggatoo waale loo ciy sànni ak kàddu gu mujj gi. waaw Assane ci émission bi euh, comme lu woon sànq rek xam naa waxtu mu ñu ko mayul. mais dañoo waxtaan fi nga xam ne fii la doom war a sosoo mooy bu demee ba woon lor mhm. maanaam foofu noonu yaay ji di ko war a li nga xam ne da di ko yar mhm. ndax euh, def naa ni tey boo amee boo ëmbee tey ngay déglu li nga xam ne mooy arxaan buy tëdd sa biir tey xale boobu noonu bu demee ba judd xale boobu du mën a nekk koo xam ne ni ku dëng la doon wala koo xam ne ni day du nekk koo xam ni day yaradi hmm. day nekk koo xam ni yarul islam hmm. naa ne kooku noonu mënatu la bon hmm. waaye nag loolu nag ban yaay moom mooy def loolu ban yaay moom mooy taxaw loolu loolu tamit question la boo xam ne lu mat a bàyyi xel la waaye tamit papa ji tamit am na ci devoir comme ni ñu ko waxee euh, papa ji war naa xam jàng doomam war naa xam def nangam ne ko def nii nañ ko defee ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal lépp hmm. muy lépp looy def na nga wax bismillah lépp looy nga jiital ci yàlla loolu bu fekkee ñu ko doon jàngal xale yi def naa ne tey xeetu ñu ñaawteef yëpp du am asan hmm. ndax euh, comme ni wax rek kenn ku nekk daal sàmm nga waaye rek comme ni mu sax waxee sànq avant na benn message ne moom daal di wax loo xam ne lu am am solo la euh, muy wax ci wàllu éducation de base moom parce que moom nee na et le meilleur cadeau moom tamit waaw cadeau la boo xam ne nii maanaam borom bi moo la ko jox jox la cadeau boo xam ne nii tey yàlla bu la joxee cadeau bi jox la ko doom kooku tamit da nga war a yar yar boo xam ne mooy yar boo xam ne nii yar bu rafet lay doon ndax jikko ji dafa am xoloo mais léegi jikko yi léegi mooy yàqu asan juste peut être doon wax na ko léegi comme ay novelage xale yi ci bëri asan yow mi xam naa dem sa kër peut être wala yenn kër di ci seetlu xale yu yàq lu bëree bëri bëri asan ci société bi donc yooyu yëpp yu mat a bàyyi xel la loolu lépp tamit parent bi da ci war a bàyyi xel bu a baax xal xool xale bi sax amuñu Facebook wala télé bi wala am na benn koo xam ne nii benn film boo xam ne moom moom rek la naan seetaan asan mhm. benn émission rek moo la naan seetaan bu koy seetaan day mer ndax ndax xoolal kooku noonu tey lu ne am na ko waaye bëgg a yare ay doomam bëgg a yare moo xañ leen li nga xam mooy internet bi kon Assane comme kooku moom mooy def loolu rawatina ñi nga xam ne ñu yonent bi sallallahu alayhi a bàyyi xel baax di nuyu ñëpp di ah, ñu bàyyi xel di leen jox euh, dig daje incha allah vendredi prochain incha allah ci émission yàq der bi euh, Oustaz Ibrahima Mbengue ñu bàyyi nga tëj euh, li may tëjee Assane moo nii mm-hmm. Euh, doomu aadama ci boppam euh, mënul am lu gën lu dul yar mhm. lépp loo am te amoo yar dafa mel ni amoo dara te nag loo bëgg am na nga am yar soo mhm. amee yar rek mën nga ko am mhm. nit ki am na xam-xam bu nekk ñàkk yar mu mel ni amul xam-xam mais nit ki xamul dara am yar mu mel ni dafa am lépp te dund ni doomu aadama amul lu ko lënkaleek moo lu dul mhm. yaar mhm. yaar nag waxoon nañ ni fan lay fan lay fan lay jóge mhm. bu ko defee nag nit ki tamit yaram bu yaroo dëgg-dëgg dafay feeñ ci bërëb yi nga xamante ni moom lay fréquenté moo xam ci mbedd mi moo xam ci école ba moo xam fu muy fayee ndox moo xam fu muy fayee courant même ba ci kaar bi nga xamante ni moom lay dugg même ba ci marché même ba ci marché li wane ne suñu xale yi ñàkk nañ yar bu la tontoo rek nga bëgg dugg si biir suuf si bul la tontoo rek nga bëgg a dugg suuf si mm-hmm. ça veut que ni yar bi des na mais war nañ koo gën a jëmbat bu baax a baax mm-hmm. ci yar nag nit ki nag kin mu ngir mu yaru na tamit parent bi boo dee góorgóorlu tamit ngay muslu ci seytaane ndax ndax képp koo xamante ne yaa ngi yar sa doom muy tegu ci yoon na la leen seytaane mi ngi ñëw tamit di yàq sa sa doom mm-hmm. ndax bëggul sa njaboot yaru nga góorgóorlu tamit ci ñaan balaa muy tëdd mm-hmm. ñaan balaa muy lekk mm-hmm. balaa ngay génn sa bunt ga nga ne bismillahi tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwwata illa billah Sama FM balaa ngay lekk nga ne allahuma barik la naa ndax xale léeg-léeg dina ñàkk yar ndax bu dee lekk du wax bismillah seytaane ñëw tufli ci bu ko defee xolam xol euh, euh, euh, lu bon rek lay jublu mm-hmm. bu ko defee nag ngay góorgóorlu ci yooyu ñoom tamit ñuy góorgóorlu tamit ci aar xale bi timis ñu baña a génn ndax seytaane di leen keuf di leen jox ci yo xamanteni da leen di mujjé ñu baña ñak ya hmm. kon mën mu wax ni asan wax deug fa yalla yar mo moy li nga xamanteni ni mo jitu mo moy le lu ta te yonent bi loolu lañ ko taggé yaru ba daan wax naa yalla yàlla moy yar rafetal sama yar kon nak dafa war ci ñun ñu yaru fépp fu ñu toll hmm. nit ki nak bu démé ba majeur ñen saatam nee nga yar benn nit teg ko ci yoon moo gënal yàlla nga jox ko ay milliards mbaa nga am ay milliards kon nanu yar njaboot gi di nuyu auditeurs yeeg auditrices yëpp fépp fu ñu nekk si Thiès ak li nga xamante moom moo ko wér di am mbégte bi euh, dajeek ñoom ajuma bi di ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatulahi barakaatu. ci seen émission yàq der bi nga xam ne Aziz moom la ñu war a di ko jaajëfal bu baax moom oustaz Ibrahima Mbengue acca di ko bàyyi mu nuyoo maanaam euh, ki nga xam ne moom saa yu ma ko gisee mu toog mu wax daam lu may yëg di ko sentir. Sama FM. acca. Ibrahima Mbengue di kontaan ci. jàkkaarloo bi macha allah amatina solo. Mhm. ak Mass ki ak yow Assane gay macha ñom ñoom Seydou Diop ma ngi len di ziar ñoom ñëpp Mama Nafan ñoom ma Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi doon teewlu mhm. macha allah di jaajeufalat ñëpp di len wax di dajé vente. jaajëfal bu baax moom laa leer jaajëfal li nga xam ne Oustaz Ibrahima Mbeng di jaajëfalaat tamit auditeur auditrice bi 37 37 jaajëfal tamit képp ku bëggoon a dugg te duggul di tuub di jégalu waat lépp loo xam ne